mbokku auditeurs yi ak it internet yu 93 point 4 di génération FM ñu ngi nuyu ku ci nekk turam ak sans tam Euh, dal leen nag jàmm ci seen euh, premier euh, numéro li nga xamante ne moom mooy ndogu ak ndaw ñi ba tax na tey ñu ngi fii ci diwaanu Grand Dakar ca watu pharmacie Nema ñëw seetu seet ndaw yi nga xamante ne nag ñi ngi fii nag te it di def ay jéego ci bii lépp weerub koor di séddale ay ndogu askanu Ziguinchor mu nekk mbir mi nga xamante ne am na solo lool daanaka kafe gi mi ngi noonu ñoo ngi koy segg waaye tamit mburu baa ngi fi li ni mel nag lépp li ko tax a dugal seen loxo ci weer wu wi di weeru koor nga xamantene lepp li nga xamantene nit daal dina ko ci def rek danaka ah, pour am ah, dimbale dimbalé moromom julit mom moko kota jok mu nek nak lu am solo ñen ñi nak di majal ah, ngir li nga xamantene lepp am nañ ko ci ngir ñu indi ko daal di koy jébal ñi nga xamantene ñom ñoy yëngu ci walu defar café bi ak ñi di jënd mburu di ko ci diw mu nek mbir mu am solo lolo waaye nak laata lolo rek dinañu doxantu euh, dem euh, seeti ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo nekk di segg kafe gi daal di waxtaan ak ñoom xool ba xam ñoom nan la ñu mën a nan la ñu def ba mën a am bii lépp koppar ba nga xamante ne moom moo leen permettre ba ñoom ñii sax ñu mën a taaj seen kiin ngir daal di defar ab café daal di koy séddale askan wi mu ngook mi ngi nonu euh, ñi ngi nonu di segg li nga xamantene mom moy euh, café gi ah ñong ngi ko gisandoor mi ngi koy sukar nonu ba tax na mu nek liggey bu am solo euh, te it nit ñi ñom ñi nga xamantene nak ñom ñoo ci yëngu ñukoy faral di def danaka nak dinañ leen lacc depuis kagn lañ ko commencé def ndax li ni mel c'est une première ñukoy def wala chaque atum wéru koor ñom dañ koy faral di def waa wala det gannaaw lolu nak dinañ ci jema waxtaan ak ñom ñu xol ba ba xam euh, naka la ak nan la naka la yëf yi taajoo sëñ bi. Euh, ñu dellu si waat tuuti bëggoon xam euh, li nga xamante moom ngeen di defar nii di café gi ndax li ni mel c'est une première édition waaye laataa loolu nga baal ñu fàttali. waaw ñooy bu baax di julli si bi di sant Cheikh di gërëm Cheikh di gërëm Cheikh Ibra ndax yàlla lépp moom la waaw boo gisee ñu taxaw fii tey di am mbégte di defal xéwal di ko joxe. lepp si lépp si Ibra la ñu ngi koy baax di ko gërëm waaw ma ngi tuddi Ibrahima mbay mais ñu gën ma xam ci ibulay yoré moto Jakarta taxaw fi pharmacie Néma wa li danaka ñi ngi ci 10e année su ma juumul xaw ma onzième année chaque année ñi ngi samp fi ni cin bi di defar ay xéewal di ko jox jàmm yalla yi ñu koy xewlo tàng na wala tangul xaaruñu ci lolu ndax ñun serigne bi rek mom moo ñu ñor xaaruñu ci lolu ñi ñu suñu ñax suñu doole di def ngir jëm Cheikh Ibra ndax moom moo moo ko jaral ndax. ngeen nek di ségg café diko ko tamit mu nek ligay bi nga xamantene yombul metti na lolo te it gis nañ tamit kenn mu taxaw ci tali bi euh, di talal, euh, lekitam ngir mu am li nga xamantene ne war na ko indi ngir baxel leen. wa mooy li ma wax sànq bi ngay doog ñew manam bafal dañuy ligay seen ñax di ko diko di joxe ngir sëriñ bi. maanaam kenn ku ci nekk bu fekkoon ne yaa ngi yor ay milliards sa compte da nga koy génnee vidéo ko ñëw ba koor gi jeex barke maam Cheikh Rafal këll gii ngay gis si kaw tali bi maanaam am na ñoo xam ne wax naa la ko sànq am na ñoo xam ne ñu ngi yor seen xewal bu ko ci def mais euh, amuñu atu pour def ko comprendre nga te maanaam këll gi ñu teg fii nii pour jariñ jaam Yàlla la mënoon nañu toog génn suñu xewal di ko def ba koor gi jeex ndax am nañ ko mi ngi fi ndax sëriñ bi euh, ñun dañuy tàmbali rek mais lépp moom mooy mottali lepp sëriñ bi mom moko koy motali mais kël gi boo gisee pour dimbi di jàmm yalla yi la ndax manam euh génn sa ñax daf ko ci euh lu ñuy jox ku wor ba ngon jot loolu manam jariñ la ndax euh maanaam benn tàndarma sax nga génne ko jënd ko juroomi dërëm nga jox ko ku woor maanaam yool bi mu am mom mi wor yow tam da nga am yool bu tollu nonu sakam duma nga sax ci chaque jour diko def lolu du suñu doole du suñu kattan kattanu serigne bi la waaw ta dañ ci bég bu baax waaw daanaka gis nañ fi sax ñi nga xamante ne seen loxo jot na gannaaw waaye yooyu lépp initiative duñ koy def ngeen nekk ay ndaw yi nga xamante ne yéen a ngi yëngu ci yenn pa activité yi nga xamante ne daanaka da ngeen ciy daan seen doole ci loolu ngeen di jël euh, ngir euh, daal di euh, baaxel li nga xamante ne moom mooy ndogu li askanu Ziguinchor mu nekk mbir mi nga xamante ne tamit ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax te yaakaar naa ni ki waxtu dog bu jotee nit ñi dañ fiy faral di. waaw moo ma moo ma la wax sànq rek Baay Faal seen la ñuy génne di ko ci def. xaaruñu si kenn ku ñu ci fekk ñu xam ne fekk nga ci mais xaaruñu si kenn sëriñ bi rek lañ ciy xaar te mi ñu si doolal di ñu si kattanal ñu koy sant bu baax nag. gars ñi nga ñi yëpp baafal yi seen i moto jakarta la ñu yor ñii ay mécanicien lañ ñii ay téer lañ xama bu nga bu 15 heures jotee nañ génn bagage yi teg ci nii sekk café gi suukar dañuy ci ciinu café jox ko jaam yàlla ñu dem ndogu ci seen gër ñu dogo jox gaay yi ndogoo fii parce que fi am ñu fi ndogo ci kanam tuuti bo xolé xaré di nga gis Baay Faal ñëw toog ndogu ndogu café bi jeex mburu jeex ñu dem. da ngeen di jox askan wi ba pare yéen li ngeen doon ñun duñu ndogo parce que wuñ si dara bu doona na loolu ñu toog suñu gër génn ko daf ko fofu yaaka na fofu lay gëna nexé mais soxla wuñ si dara dañ koy génn defar ko ba mu neex ñu jox ko jaam ñu yobbu ko seen gër xewlo ko ba sant borom bi. ani ki yor wàllu mburu bi. lépp lépp ñun la rek lépp ñun la waaw pain bi defar nañ ko bare pain bi defar nañ ko beurre nañ ko chocolat nañ ko def nañ lépp mi ngi tege waaw léegi café bi lañ nekkoon di suukar nii di xaar dog jot rek ñu jox jaam yàlla ñu xewlu lépp mi ngi sur place boo bëggee mën nañ ko génneel nga jëlaale ko lépp waaw waaw ma jéem a wax moom xool leket bi ñaata moo ci nekk. waaw yéen nu mu demee nii salaamaaleykum mu ne. waaw fay la yaay booy. tey tàllal li nga xamante ne ah. mooy këll jàppale nit bi non bi mooy xanaa sant sëñ Touba ret parce que li mom ab yokute la dal waaw tawal fi cafe gi di la jamu yalla yi di ko jëfaat si jaamu yàlla ya yi amna ño xamne heure ndogu ci talibi la len di fekk kon bo len ko joxe yakarna lolu jamu yalla la te luñ fii teg nii yëpp pour waaw ndogukat yi moo doon ni ko fii teg dañuy ñaan yàlla mu dimbale nu si mu gën nu si dooleel si barki sëñ Bamba daal. nekk li nga xamante ne nekkul une première fois ngeen koy def fii ci diwaanu Ziguinchor daanaka ay at yi koy def uh, fii ci diwaanu Ziguinchor tey ban jàngat nga ci am. bi mooy liggéey bi dafa gën a yokku parce que yoonu sëñ Touba amul tànku ginnaaw yaa ngi dëgg parce que boo xoolee ay jamono café yi si dëkk bi comme nii. mais lu baax la ak yokkute moo tey gis nañ si jàngaat am nañ si jàngaat bi nga xam ne gis nañ si yokkute ak jàmm ak tawféex waaw. instant bi yëf yi fu bi ñaata moo nekk euh, ci biir këll gi. instant yi moom bi ma kii këll maam bi la compté ngunu compté ngunu lu fa mais bu nu wàccee après dinañ ko compté heure bi yaa ngi gis benn 2000 laa yor sama loxo mooy mooy billet bi lu si des moodu këll bi la bu nu toogee après si la ñuy compté amaat départ bu suba jënd si ay café ak yeneen. mais est-ce que di ngeen ay nit dinañ leen ñëw gis euh, même bu fekkee sax du waxtu wi sax mais boo leen demee ba pare ndax ay nit dinañ leen ñëw gis am liñ leen jox pour suba euh, ngeen mën a préparer li nga xamante ne moom mooy ndogu. waaw am na ñu koy dee di def saa saa day am ko waa da ngay wàccee ndogu yi joxe lépp ba ngay waaj a ñibbi ñeneen ñëw ne la am Baay Faal jàppal suukar café gi wala jàppal si café gi wala jàppal ñaar téeméeri xam nga day dee di am ko mais du chaque jour tamit ko li ngeen di taxaw ci tali bi léeg-léeg doo leen gis ñu leen di ñàkk loo wala non day am parce que ñun ñoo di laaj quoi mais ku di laaj rek lu la wax da ngay muñ quoi parce que lu di laaj ñoon danoo xam ni njëriñ la moo tax lu nu si mënta wax dañuy jàpp ne danoo pour def lu baax rek. da ngeen am gëm-gëm bi. gëm-gëm bi la am tey waaye ak yakin bi waaw am gëm-gëm ba sax. lu am solo la si dëgg baax na gis neex fii la ñuy ndogu see ñoom suñuy tutànka lañu dañ leen di yaatal ndogu bi café gi ak mburu yi waaw ak lépp daal parce que ñoom moom ñoom ñooy xorom si daanaka xale fu mu nee yàlla moo fa ne daal waaw moo tax ñoo far mais jëfal si laa tudd subaana eh, dañoo bëggoon a xam yow tey ban jàngat nga am ci euh, jeunes yi jéego nga xamante ne ñoo ngi koy def ci góor waaw jeunes li ñuy def nii lu baax la di lu am solo la maanaam at tànk weeru koor ñuy toog ndogu dem ba heure ndogu jot borom oto yi borom moto yi ak ñii di dox ak ñëpp parce que tey boo xoolee dina am koo xam ne heure ndogu dina jot mu am lu mu ndogoo dina am koo xam ne heure ndogu dina jot fekk amul lu mu ndogoo mu ñëw fi ndogu am mburu am kafe am ndox bu sedd xam nga lekk loolu rek tiyaaba la ko lool lu rëy la xëy na amuñ seen fay daal ñoom wax dëgg yàlla parce que lii lu rëy la tiyaaba bu rëy la ba ci yonent bi depuis foofu la commencé xale yi lu rëy la ñuy def nii koñ boo dem nag loolu am na fa parce que nit ñi yamuñu ko dina am ñoo xam ne dañuy bàyyi ba heure ndogu jot rek ñu génn dem nuyu leen ñëw ndogu ba suur ñibbi seen kër ak sutura maanaam ñu ñu ëmb lu bari daal li lu am solo la waaw te kenn xamuñu ko maanaam kenn xamu ko ko tey boo amoon benn euh, jàng leen koy ñaanal ñu gudd fan ak wér gu yaram ak ay ay ati at chaque année ñoom ñu def ko. man la may leen kattan ak ak mën-mën te gars yëpp ñu ngi ciy def na gars yëpp ñu ngi ciy def ñun ñëpp ci lañ bok man pharmacie fii la bokk ndogu li neex na trop da ngay lekk mburu naan café naan ndox bu sedd bisaab yëpp vraiment dafa neex quoi surtout fii waaw waaw waaw jaajëf kontaan <laughs> mu ngoog Xavier daanaka ñoo fii ci diwanu eh, Grand Dakar ñewon eh, gis ndaw yi nga xamantene eh, ñi ngi fi di yëngatu ci walup joxe ndogu askanu Ziguinchor mu nek mbir mi nga xamantene mbir mu am solo la te it mu nek mbir mi nga xamantene askanu Ziguinchor tamit war rawatina askanu Grand Dakar di rafetlu bu baaxa baax di ñaan yalla tamit li nga xamantene mom moy lañu tambali ni ci koor gi mu nek li nga xamantene dinañ ko wëyal atuma dewen yalla may leen katan ak man man ni rek lañuy daali def ak ak ndaw yu ci biir koor gi xool seen taxawaay ak jéego ya nga xamante ne ñoo ngi koy def ci askanu Ziguinchor di leen jox dig daje niki ëllëg ci beneen numéro